Tout de Mamadou Mounirou Ly directeur général office national de formation professionnelle ñëwoon fi tey nag euh, ngir ñu lancer euh, parce que tey dañu ñëw pour commencer pour tàmbali ay formation waaw formation yoo xam man ak maire maire bu Kër Moussa Moussa Ciss xam ne moom moo nangu lii mu fay am ci maire am waaye waaw sélectionné xam nga bi ñu lancé appel bi

am na ñaar téeméer ak juróom fukk ndaw yoo xam ne bindu nañu buñ bu ñu bindoo ba pare nag ONFP bi nga xam ne moom mooy euh, moom mooy tàggat moom mooy euh, moom mooy moom mooy recensé moom mooy xool ku war a bokk ku warta bokk def na fi travail bu jéggi dayoo ba nga xam ne ñaar téeméer ak juróom fukk yooyu tànn nañ ci juróom-ñeent fukk yoo xam ne première phase bi ñoom ñooy dem waaw ñoom ñooy dem boole nag vraiment ay formateurs yu jógee di lycée de la Fosse ah ak euh, yeneen formateurs yi nga xam ne loolu ma seen métier avec la supervision de l'ONFP ñu tàggal leen ba fii ak ñaar fukki fan bu ñu génnee ah mu ñu delluwaat si ma si ma jël leen ci juróom-benn weer yi après bu su ko demee après ñu xool naka la ñuy gën a mën a utiliser ngeen population bu Kër Moussa ak li ko déglu bu baax ma jox leen xibaar bu neex ak seen lycée privé d'excellence bii di Elite School nga xam ne ñëpp ko ràññee léegi ci résultat bi muy amal ci scolaire bi mi ngi leen di yëgal inscription bi tàmbali ci niveau primaire bi moyen ak secondaire année scolaire 2023 2024 mi ngi leen di yëgal ne inscription yi tàmbali na ci scolaire 2023 2024 ngeen mën a gaaw gaaw contacter numéro yi pour def seen inscription 76 393 77 277 54 02 77 330 34 11 29 wala 76 618 59 70 c'est une lycée privé d'excellence Elite School mais si doit nous présenter te Elite School dal c'est plus qu'une école c'est une famille mbokk ñu fàttali leen l'inscription inscription yi tàmbali na nombre de places bi nous ko limité kon nag inscrire